waaw am na ci mbétt bu rëy parce que la première fois moom Sénégal tey ñu ne ay bijoutiers yi nekk Sénégal financé na leen xaalis parce que bijoutier dafa nekk métier boo xamante ne si métier matière première bi gën a riche addina àddina bijoutier moo ko mu oor ak xaalis léegi bijoutier bi demee jàpp na ne ci am na xaalis fekk na amaan na sax amul xaalis mais tey c'est la première fois tey jii d'abord avant ñoo jox financement formé nañ ba pare jaare ko ci ñaari groupement yi fi nekk mooy association national am tënk na képp koo xam te ne bijoutier nga yaa ngi ci biir association bi am ay GIE nekk ci biir ñaari GIE beneen tudd tëgg taabal beneen tudd GIE ànd soxla suñu métier ñëkkati benn somme bu toll treize et quelques euh, millions vingt jox leen ko donc ñun lañ ci am satisfaction totale kontaan ci baax ci liñ def te c'est la première fois moom da nga dégg ñu naan tëgg dawru mbaar di borom la ko tontoo tëgg boo gisee bu xëyee mi dem ci mbaaram toog kii liggéey 1000 francs boo ko joxee 2500 dimbali nga ko tëgg yi tey yàgg nañoo ñaxtu ne dañ war a financer projet yi da ngay dégg Sénégal projet yu bëri jaar na fi tëgg yi mosuñu gis seen bopp yàlla dimbale ñoom financement boobu ñu ngi jóge ci DER retourné waat joxaat ko bijoutier yi mën cee gis seen bopp kon ñoom xam nañ leen ci war a xaar parce que tëgg exemplaire la un bijoutier référence la te loolu yaakaar naa feeñ ci xar kanam ci tëgg yëpp daal. ñi ngi koy wax léegi madame wax na ko léegi mooy mu ngi doog a am ci tëgg yi xam nga luy doog am moom impact bi muy def kenn jéggi na dayo rawatina euh, ndax ñaari financement la benn bi mooy tëgg table muy organisation tëgg table nga xam ne ëpp na mille personnes ci Sénégal maanaam boobu rek man waxuma sax individuel mais boobu rek impact bi muy def moo ëpp dayo parce que mën na la wax ne bële dëgg la vingt sept personnes la ñoom dëgg la kenn ku ci nekk dina jël liggéey delloo mu am solo mais bi may fàttali ne am na tëgg bu nekk Tamba matière première bi nga xam ne ñu ngi koy jënde fii suko amut fofu du liggey mën na bañ am dépasse légui financement bi da koy dañuy permettre ñun ñu mën jënd fi matière première bi yobul ko ko Tamba au lieu que muy ñew Dakar mu dem Kédougou mu dem mu dem mu dem fépp ci région yi bëgg nañ fa am ay point am nañ fa ay point de vente fi fi ni lu ci ëpp Touba nga xamné matière première bi nga xamné amuñ ko won parce que ñuy né euh Sénégal dafa war am point de euh, comptoir comptoir boobu donte président de la république mi ngi won ci projet yi ba étude yëpp def nañ ko li waroon des rek mooy ñu finaliser ko mais lii dafa nekk loo xam ne mën na sax nekk loo xam ne première lay doon ñu jàpp ci ba karo projet bi euh, euh, comptoir bi di mooy financement bi dinañu permettre tëgg yi nga xam ne ñooy tëgg xaalis kenn dootul amati ñu ci bëri duñu am problème pour fan la ñuy jëndee matière première loolu mooy première nga xam ne du loo xam ne dañ ko jël kenn ku ci nekk di ko séddee déedéet dañ koy jël jënd ko matière première dem ko ci ay point de vente ku soxla mën ko am ci nu mu gën a jàppande beneen bi mooy ñu am ay bitik yoo xam ne képp koo xam ne soxla nga euh, matière soxla nga yeneen matériels yi nga xam ne mooy outillage yi nga mën ko jënd ci prix bu yomb bu dul loolu dañ ko mënoon di jëndee ci yeneen ñenn ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, commercant yi nga xam ne léeg-léeg sax marché bi day saturé bu ñu amee bëggee liggéey duñ ko am kon loolu jàpp naa ne lu am solo la état bu Sénégal def ko ñuy remercier état bu Sénégal ci def gi ko def parce que ñun ñëpp Sénégal dama gëm ne lii mooy tabax réew mi réew bu ñu koy tabax main-d'œuvre locale tabax réew. fekk ñi ngi am suñu main-d'œuvre locale nit ki bu xëyee mën a liggéey mën ci loolu réew mi dañ koy tabax parce que bu ñu tabaxee mi bàyyi nit ñi nit ñi dañuy génn réew mi mais bu ñu tabaxee nit ñi nit ñi ñoom tabax réew mi. loolu ñu ngi koy encouragé te lii def ci bokk mooy bu ñu bu DER taxawee financer lu ma trente et quelque trente trente trente deux millions tëgg table mu financé ko dix neuf millions dix neuf millions cent. Euh, ànd soxali suñu métier nga xam ne Baye Thiam moo ko moo ko moo kii mu euh, euh, financé leen vingt sept millions jàpp naa ne loolu dina am lu bare bare lu mu indiwaat.